Amadou dafa wax lu am solo 2019 nekkoon na candidat Karim Wade c'est-à-dire loolu noo ko mën a expliquer. ak nationalité bi. ah d'accord <coughs> euh, 2019 Karim Wade bi mu nekkee <coughs> candidat la même procédure la defoon. Ah il avait déposé si si. il avait déposé au niveau euh, du consulat en euh, du consulat français ak kii euh, au Qatar mais gis ngeen ne. boobu candidature dañ ko taxañ ci ne ko amoo carte électeur kon tu n'es pas électeur tu n'es pas éligible foofu lañ ko daaneele boobu ak léegi lu ne xew na fi lu ne jaar na fi élection législative jaar na fi leneen ak leneen jaar na fi du topp at moom <laughs> nepp il n'est pas acteur dans l'administration française topp ko bi mu demee boo war a nekkaat candidat 2024 aussi demul naan dafay xool boobu dépôt nga xam ne ça fait 5 ans fan la toll dafa defaat bu bees téyewaat kayit gu bees parce que <clears throat> yoon may na ko ko maintenant euh, ñi ngi wax waxu assemblée mhm. bu ko tuutal absolument bu ñu tuutal conseil constitutionnel parce que conseil constitutionnel. ña fa ne bul ne bu ko tuutal yow bu ngeen demee ba. egg ci ci non. ci loolu mais ñoom du ñu justiciable non non jeex na kon kay. non bu ci attaqué yow bu ngeen demee ba par exemple egg ak ñoom ci foofu. bu ngeen egg ak ñoom foo xam ne kenn musu fa egg ak ñoom papa ngay ci dañ leen a ger papa ngay waaw nangu nga leen le président de la république il est justiciable non da nga ni non non loolu kenn werante wu waaw kon lu tax nga bëgg boo nee conseil constitutionnel bu leen kenn tuutal joxoñ baaram ok et puis détrompez-vous dañuy wax naan way les magistrats les ils sont pas tous des magistrats oui bien sûr ils sont pas tous des magistrats oui non du ma lim turu jàmbur du ma toog fi am nañu dul mais avocat wa nga fa kan mooy avocat non du ma tudd turu jàmbur. loolu du dara du ko def. du ma man li may wax du yow yaa ma koy wax. dama lay l'essentiel sénégalais yi ñuy déglu parce que débat bi sénégalais yi ñoom ñoo ko war a déglu. ay professeurs. wuy ma kon da koy nangu. dama lay laaj jamono yi kan moo. mais kon léegi yow te ma la bàyyi nga wax. baal ma kon voilà au conseil constitutionnel am na ay magistrats ñun ñëpp dañu respecté magistrats yi parce que mais nag bu leen fàtte ne ñoom la ñuy doxal assemblée nationale moo ko togg def ko ay loi jox leen ko. pour ñoom ñu koy doxal waa léegi ñu ne ñun dañ koy doxal ci assemblée nationale heure bu ngeen ñu ko xasee jox amatu leen droit def defaat yeneen loi mais règlement intérieur bi day continuer di dox. institutions yi di kon continuer di dox. ci jafe-jafe bu amee ci assemblée national mënu ko lijjanti ça veut dire que ñun pays ba moom fayit na. <coughs> assemblée nationale dañu jël seen responsabilité man dama jàpp ne waa Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom it euh, soupçon yi grave na grave boo xam ne. ñoom mënuñu ko daaguwaale di ko demee élection. Mhm. mais laaj na ñoom it ñu taxaw ñu jël seen ay respons mais lan moo urgent c'est le calendrier républicain ou le Sénégal. Absolument. Hmm. moi je préfère le Sénégal au calendrier républicain. Ah li xew ren ci élection mësul xew ba Sénégal des Sénégal ba léegi moo tax report ñu koy def parce que mësul xew présidentielle reporté nañu local reporté nañu législative. Hmm. bi yoon dañuy reporté li nga xam ne mooy élection présidentielle parce que sunu réew Sénégal moo ñu gënal élection. lan moo xew quelle est l'urgence lu ñuy fërti fërti ah lu ëpp cinquante candidats yoo xam ne kenn ku nekk ak sa cas boo ko toppee ba ci biir boo dee nit ku jub di nga xam ne kii daa jaay nañ ko doole <coughs> mooy ñi ñu wax ay les candidats spoliés ci avance spoliés am na les recalés xam nga ni bu ngeen ci amee ndam dañ leen jàppal tànk kan moo ñu jàppal tànk ah, xam ngeen ni bu ngeen ci amee ndam yéen kan moo ñu jàppal mais mais ki leen jàppal mooy Benno Bokk Yaakaar. loolu kay Sénégal bu ngeen ci amee ndam yéen PDS su ngeen amee ndam ba mën a bàkku war ngeen xam ko non mooy li am non non su ma daggee Euh, projet bi bi ñu ko yóbboo au niveau euh, du euh, du bureau de l'Assemblée nationale kenn gàntalu ko à l'unanimité lañ ko nangu bu ñu ko yóbbee conférence des présidents à l'unanimité bi ñu ko yóbbee commission dañ ko voté par une forte majorité trois personnes ñoom ñoo ko voté wul ñi si ñëpp dañ ko voté te bañ ko yóbboo assemblée nationale aussi 120 ñoo ko voté contre 24. kon du benn kese. waaw da yooyu mënuñu représenter Sénégal. xanaa Mauritanie wala Gambie la ñuy représenter. il faut respecter les députés. bi dina ñëw ci yow. alors Amadou. Amadou Seck man bëggoon naa dañ kumpa tuuti aussi ah. déclaration sur l'honneur bu Bassirou Diomaye